Euh, people dafa am suñu xarit nag boo xam ne dafa ñëw dama bëgg mu taxaw parce que man lugam moo ma neex Babacar na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm mais Babacar style bi dafa naay ah. sax si di sàmm tey gis nga ku la gën a am style de non mais wax xoolal xoolal lii bi bi bi Baye Fall la mais si di si di xoolal bi ma jaar génn mais bii mooy sunu sax. parce que sunu bi day day ànd ak lii. dafay ànd ak lii ah. ma seeti ko. ah ouais alors Babacar ñu ngi lay gërëm ah. ñoom seen particularité toogal euh, mooy bu màggal jibsee euh, képp kuy dawal oto euh, di jaar ci yoonu Touba bi dañuy taxaw ci mbedd yi oto bu paan ñu jàppale la lu tax ngeen def ko rek ci seen coobare. ah te xaaru leen ci kenn euh, tubaab tuddee ko bénévolat loolu loolu hmm. bénévolat bénévolat bénévolat ah, di jàppale noonu te yàlla tax dëgg la Pape Cheikh waaw onze bi la bismillah indi yàlla uh-huh. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba mm-hmm. soo gisee mu demee noonu mm-hmm. ñun ay mécanicien lañ mm-hmm. nekk ay xale di liggéey te comme képp kuy jóg di dem Touba rek oto ngay yóbbu ñun nga xam ne moom la ñu yàlla may ñuy suñu métier ñu war see mën a liggéeyal Serigne Touba moo waral ñu si jóg si déparé Dakar ba Touba. ñu def ku ñu romb dañ lay def assistance dépannage gratuite bu ñu la fekkee si àll bi mun ñu la dépanner dañ lay lonk dugal la ba ci dëkk nga am sécurité. macha allah bu ñu la fekkee si dëkk mën la dépanner ñu dépanner na dem. Uh-huh. bu ñu demee noonu la ñuy def duggee ba biir Touba. Uh-huh. parti bu ñu avant ñuy dugg uh-huh. ku nekk dana woote bu ñu duggee ku njëkk a woote liste bi la ñuy topp noonu la ñuy toppee biir Touba ku paan ñu dépanne la durant trois jours ah am tam numéro téléphone boo xam ne da ngeen koy joxe ah, bu ko defee biir Touba ñuy wër Poupar ñu dépanne la gratuite maanaam bu ne suba la màggal ak jour màggal ak màggal ba suba ga ah, loolu la euh, euh, fu ngeen di euh, ci yoon yi mhm. ay seen ay oto yu bëree taxaw wala benn benn kii rek ngeen di def benn convoi rek ngeen def la ñuy def bu ñu ñëwee ba Thiès mhm. léegi xam bu ñu ñëwee ba Thiès léegi si la yoon yi jëm bu nekk ci séparé wu jëm Touba mhm. danañ mat lu mat fukki garage très bien léegi bu ko defee ñi jaar yoon yoonu Ngaay ñi jaar yoon Louga ñu jaar yoon Kébémer ñu jaar yoonu Bambey très bien après léegi bu ñu ñëwee ba Touba nag uh-huh. si la ñuy dajaloo nag fi ñuy suñu siège uh-huh. léegi bu ñu ñëwee ba Touba bi nga xam ñu xoolee oto yi paan yëpp uh-huh. ku nekk ñu dem ñu doon leen ne kii nag. macha allah mais yéen association ngeen wala ay garage yu dajaloo kese ak fan ngeen di jëlee moyens yi même si yéen a ngi liggéey ci. Euh, hmm, garage ay garage yu dajaloo lañ. Mhm. Mhm. garage Ibulaay. Mhm. ak Mamadou Niang. ñoom ñoo ko jiite. Ibulaay sama frère. muy jël propre moyen am na ñoo xam ne ñu ñuy jàppale. ñoo xam ne nii comme ku si mel ni Baara Gueye ci Linoir. ak ki si mel ni. baara dafa baax. dafa baax waaw a ñame joxe. ak Fall transit bogo. waaw ñoom ñoo ñu jox transit bu baax ni ñoom ñoo jox. am na beneen garage boo xam ne Pape Souley. dafa ñu jox ay ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ñu jox. leneen la am na kenn koo xam ne nii mooy sama rakk bi Ibulaay. ay taalibe Ibulaay. Uh-huh. mooy jël propre moyen di def lépp. ñeneen dañ koy soutenir mais lépp moom la. mais est est di ngeen di lancer ay message pour prévention ci màggal bi. Hmm. ba accident yi di bañ a am parce que souvent panne yu bëri accident yi moo koy andi. Hmm. waaw waaw waaw dañ koy dañuy lancer ay message hmm. en plus ñun même ñun bu ñuy dépanner dañuy am ñoo xam ne ni duñ ay mécaniciens bi dañuy participer. très bien ñoom ñooy yor. triangle yi ñoo yor torse yi. en plus ñoom ñoo yor affaire yooyu yëpp nga xam ne mm-hmm. ñoom ñoo yor sécurité yoon mm-hmm. Mm-hmm. c'est bien ça donc euh, Babacar xam naa mbokk yaa ngi seetaan te fi mu ne ñu ngi euh, ñu ngi waajal màggal gi yaa ngi ànd ak Mamadou Niang il peut pas être sur le plateau parce qu'il y a pas assez de place tonton Macky est en train de dire mais pourquoi l'autre invité n'est pas venu voilà ah <laughs> <laughs> c'est mu ngi ci ginnaaw mais mënul toog ndax siis ah. <laughs> yi mm. a a ay yeewu leen yi fi Sénégal la mm. fii rekk ngay gis ci émission bu mel nii ñuy waxtaane lépp Sidé ngi toog mm. musique lay waxtaane mm. Babacar a ngi toog jàppal ma jàpp lay waxtaane Mado ngi toog gémmiñ lay waxtaane bu ca kanamee <laughs> Bijou ngi toog ci nit ñi lay waxtaane alfe ngi toog togg lay waxtaane excidex a ngi toog made in Sénégal lay waxtaane maa ngi man poobar lépp lay wax <laughs> n'est-ce am na ñu bëgg a xam nag euh, fu ñu leen di jotee numéro téléphone bi pour bu ñu dee màggali euh, nu ñu mën a def rek ba ñu ko yàlla waaye bu paan ñëwee parce que paan day bette euh, ñu woo la. waaw wala ñu woo équipe bi nga nekkal. waaw ñu ngi ñaanal ñëpp. Mhm. ñu dem si jàmm ñëw si jàmm. Mhm. Mhm. kenn bañ a paan. mais képp ku paan. am nañ ay numéro yoo xam ne boo ci wootee rek. dinañ la dinañ la rejoindre. voilà benn numéro bi 77. 912. voilà 0012. Bouba Ndour boo feeñul <laughs> voilà beneen numéro bi finalement <laughs> beneen numéro bi. 77. 013 13 82. d' accord donc rappelé waatal numéro bi excité rek suñu seen numéro léegi mu ne la répète. am na teel nag yow tamit am na jox la stylo répète. beneen bi 77. 77 912. 912 0012. 0012. 77. 77 013. 013 13 82. 13 82 waaw yal na leen Serigne Bamba fay. amiin ah yal na ngeen am fay fayu fayu Serigne Touba. xam nga ab taalibe moom Toubarkalla ni ma ko mm. waxee sànq rek mm. ñun. Euh, dañuy jiital lépp. dañuy jiital lépp waaw suñuy police fes dell ak xaalis ñëw suñu suñuy mbaxana toog jébbal lépp sëriñ Bamba jaral nañu ko yow nag li mu la jaral nag yal na yal na la yal na la suñu borom fay fay taalibe waaw yal na la yal na la sëriñ Touba fay taalibe et dama lay may seddee Sidi Samb bu bees bi pour booy dem rek nga déglu euh, numéro 4 euh, bi ci way Cheikhul Khadim Bamba wóor dama naa nañ ko dama koy il faut mu kii Sidi la tudd ah, macha allah jërëjëf Pape ñu lay ñaanal ñu lay sant baax di la gërëm di gërëm bu baax télé bi suñu borom yokk ko bu baax a baax amiin amiin amiin bépp ngeen a bi ci xéewal la bokk waaw waaw waaw ci la bokk ci ci xéewal la bokk d'ailleurs daaw sax. Hmm. maire soxna ñun dépassé hmm? nañ ko. xoolal loolu nañ ko. xoolal loolu xoolal loolu. yëpp ci xéewal yi la alfi pomme de terre yi muy saaf ñu koy lekk suñu biir yi di fees. ci xéewal yi la ci xéewal yi la waaw kat kat ci rafet yi ñuy dabal. ci xéewal yi waaw it bi télé ñëpp it bi télé ñuy gën a xool suñu télé. ci ci ci ci ci xéewal yi la oto yu rafet yi <laughs> ñu war a jógee jëlee Dakar yóbbu ko Touba. ci xéewal yi la Bouba Ndour mi nga xamante ni day bàyyi lépp di ñu liggéeyal te mag ma fuuf yëpp ci xéewal yi la <laughs> rek ko wóor Sidi Sab mi yeewu fajar ñëw rek ci télé bi romb télé yëpp pour wax ci album am bii pour nit ñi xam ko hmm. barki Serigne Bamba ci xéewal yi xanaa kon xéewal yi bëri na sam Serigne Touba war nañu jërëjëf Babacar jërëjëf Serigne Touba